France à ce point de vue là mais il faut ba tey. responsabilité ba président Macky Sall ci li ñu wax nii parce que ci li ñu wax yépp ma li ma dégg mooy dafa wax rek mbir yi calmé kon li jot a xew moom lan mooy part de responsabilité. li li jot li ci arrestation yi ngay wax manifestation yi violence yi yëngu-yëngu. yi amoon coow lekk yooyu yépp lan mooy part de responsabilité bi nga xam ni am na ko. mais am na lu mu ci jëkk wax bi première manifestation amee ba sëñ Mountakha ñu seet si ko ba mu yónnee ci fële bi mu jëlee par lu mu wax j'ai compris. Mm-hmm. diggante bi am na ci taxawaay boppam. parce que moom mooy gérer état bi moom mooy gérer réew mi c'est lui qui répond de notre sécu de notre sécurité de la sécurité de nos biens. et de personnes. te li mu mujj wax oti mooy réew mi dina ko assurer ci fi mu toogee en toute sécurité. mais nous nous demandons aussi que ça soit en tout respect de l'état de droit. ah et ñi ko féetale seen bopp nag ne menace la boo xam ne seen bopp. mais kooku su la neexee xam nga man maa ngi nii bu waaj yëgoon rek ne dëmm bi xam naa ne yow di nga wuyu mais man ma wuyu <laughs> parce que am naa fulla <laughs> bu kenn ni woon ne sàcc bi léegi man du ma du ma tiit. damay continuer def sama lecture continuer sama émission. ah loolu yaay xam loo tax nga jaaxle. parce que si si oui parce que <laughs> parce que <laughs> li nga wax nii c'est c'est assez révélateur bi mu ko waxee le lendemain bi ñëpp doon wax ni vraiment président du dem ñi di ko rafet ba ci classe politique bi ñenn dañoo préféré def conférence de presse jël ci pàcc bi mu waxee ne dinañu restaurer crime organisé. wax ni banditisme expliqué yooyu yëpp jàpp ni. dinañ ci enquête mooy waaye yeewi askan wi dañoo taxaw def. point de presse jàpp ne daal wax jooju. mais am na keneen ku def point de buggaan def la presse pour te waxul loolu. waaw loolu laa wax. Oh, mais nga da nga tànn li la neex rek. yow da wax ñi nga xam ne dañoo féetale xaw ma ne aussi pour fiscalement ou pour être à non dañoo féetale seen bopp wax jooju. <laughs> xamoo ci dara man. comme am na keneen ku wax le contraire. man déglu naa ñaar yëpp ngoonte moom si teel ñaar yëpp boo fitee benn rek da ngay far. far waaw oui mais oui parce que mën loo am fekk ñaari événement bii ne rouge la bii ne blanc la ñaar nga boole leen comme kii ne d'accord naa ci rouge blanc mais boo tànnee blanc tànni bàyyi rouge rek am nga tooñ nga mooy dëgg. <laughs> tooñ ah oui oui mais xam nga xam nga choix la saa yoo choisir rek bàyyi nit. choisir ma dama laa laaj. ah non mais mais même laaj bi xam nga man xam naa journaliste bi. jànguma ko mais dama leen di fréquenter parce que dama chaque jour bu ma dajee yéen dama leen di laaj pour xam li ngeen di liggéeyee lan la <laughs> man lu may jàng ci yéen laa koy jàngi entre diggante kii interviewé ak ki mu ngi interviewé am na lu am na benn bataille bu ci nekk am na benn xeex te terewul ak lu ci mënta am ñu ne ñaar dañuy ànd ne nous fréquentons pas visiter nous jàngal nañ leen. dégg naa li ci wax ah. Euh, moom xaar mi nga bàyyi buum bi loolu nga ñu bëggoon wax sànq si bi ngay oui sama laaj mujj bi oui euh, wax na ko léegi ci France 24 également. sans moom présidentielle du am. ku wax loolu wala dina compliqué Ousmane Sonko. un chaos indescriptible. chaos indescriptible. waaw oh, loolu am na ci sañ-sañam am na sañ-sañamam moom mais nañu nangu nit ñi am seen sañ-sañ. waaw ah. ne bëgguñu loolu. on gis nga dans la bataille politique. et l'affrontement entre le pouvoir ba ñu koy def hmm. ñun amoon nañ fu ñu àgg foo xam ne fii saa yu ñu àggee fenn am ñu taxaw à vingt heures on a annoncé boobu temps ay rajo yi amuñu fi kenn lañu woo rek mu ne ah, Abdoulaye Wade gagné na émission yi dëkk bi tàkk Abdou Diouf est resté trois à quatre mois jusqu'au mois de mai xaw ma fi génnul génnul bureau on a fait un procès un grand homme Mamadou Dia ñëw ci procès bi constitué témoin libéré le président élu mais terewul ñu discuter ak ñun discussion boobu moo indi la code de 92. ah suñu discussion baaxul. ok ñu participer en gouvernement dugg ci gouvernement bi ne lu gouvernement bi def d' accord nañ ci nous en prenons la responsabilité sauf la FPE. Hmm. ñu woote grève général ñu ne ñun suñu militants yi nekk CNTS du ñu grève. diffi ñu génn difficulté yi jëm 94 ñu waat ñu dugg ci te pourtant bi ñu koy bi ñu koy commencé faamara Sagna di ko discuter à Abdoulaye Wade ci la ñuy rey Maître Sèye hmm. Abdou ñu ànd on a de grandes batailles des affrontements terribles mais toujours au bout y a une démocratique. mais fii amul wax kon fii xam nga yaa wax Wade Diouf dañ doon wax malgré bataay waaw ah. mais fii li ñuy wax ba sàng Ousmane bi ko gars yi laaj. waaw mais non ndax waxtaan am na si diggante ñun ndax ñun ndax ñun waxuñu. ah ok waaw mais ñun ñun wax mooy suñu métier ñun construire dans la paix mooy suñu métier dialoguer mooy suñu métier ñun nous sommes des ñun dañuy defee lu nekk war nañ ko mën a waxtaanee yenn saa yi sax ñu poñee ñu ñu bàyyi dara pour àndaat. mais ma kenn mënu ma xam nga chaos indescriptible. xam nga la mooy bu ñu ma ko doon bindaloo sax dama nga koy ragal bind. maa ngi hésité sax juum naa sax si bi mu ko tuddee. Hmm. Ah oui parce que soxlu ma loolu man. fitna. est-ce que est-ce que weesul fitna. est-ce que est-ce que weesul fitna je ne sais pas. et toll ci benn réew boo xam ne bii. lii xew ci réew yi dañ dul xam xam nga fii ñu doon wax ay nervi yi. oui nervi am na nervi am na ay rajo ak ay télévision yu leen topp ba foto leen ñu nekk ci biir benn kër parti nekk fa. Hmm. am na. oui mais après ñu am nervi yoo xam ne dañuy am fetal am na xam nga lan moo la koy dëggal. Hmm. avant en France hier la question s'est posée. le ministre de l'intérieur a adressé une aide d'information au ministre de forces armées ne ko ñun gis nañu ci ñu doon jàppaate ñoo xam ne du ñu policier ay waa armée lañu. Hmm. moo lay wax ne comment maintenant la stabilité politique d'un pays le problème de la gestion de la sécurité des biens et des personnes pose problème nga def ñun am nañu quarante cinq mille policiers yu ñu déplacé comme Hmm. loolu mooy justifié waxam barki Dembo Ndiaye organisez vous seen quartier yeen maire yi pour jël en charge seen seen sécurité je je ne sais pas lan la ah. ci jublu mais dama lay wax sécurité am na ay maire yoo xam ne ñu ngi ko jël seen bopp hier à Biscuiterie tous les enfants se sont réunis des gosses ak le maire ils sont allés voir le marché Mbabas tey ils ont pris des décisions que d'abord dañ koy dis parce que toute la population de cité imbécile va venir là-bas ouais. on a fait des aménagements mais on s'est battu que fi ñu daan jaay xar yi ci aménage bi li ko commencé HLM ba Madiaye Fall kenn jaayu fa xar c'est parce qu'on a mis de l'argent maintenant il faut les équiper il faut mettre du mobilier mmh. mais nous sommes capables de le faire mais dans la discipline la rigueur et la vérité ah. naxante bi lañu war a bàyyi sous la présence ou l'arbitrage de toute personne extérieure aux hommes politiques te day am bés bu nekk loolu nag lay bañ donc je dis xaw ma ci lan la xaw ma foofu la hmm. mais réew loolu moo ko yor mais réew waxtaan moo ko yor réew mooy démocratie mooy ko yor réew laajul par parloo surtout nag bu fekkee ne ki nga xam ne mooy yor réew mi la mais buñ ci awee dinañ déggoo. Hmm. président Macky Sall bokkatul tey bu demee naka nga gisee euh, configuration de l'espace politique. xam nga groupe bi am problème mooy bi am kenn ku ci génn. donc président Macky bi nga tudd dafa am fu mu bokk. benn waaw comme moom dafa dem dafa bàyyi boo amee ku jëkk a gaañu du doon PDS du doon Rewmi du doon Pastef du doon bokk gis-gis nañu wax d' accord ngoonte problème bi d' abord nañu nangu ne ci suñu yaakaar sama yaakaar boobu man mooy problème bi jëkk am foofu lay am. Hmm. du dëgg. Hmm. très bien comme foofu lay am nag moo lay wan ne recomposition politique mu ngi commencé ci biir coalition moom. waaw parce que ci biir coalition am déjà am na ñoo xam ne ñu waxoon nañ ne ñoom candidat lañu. Hmm. Alioune Sarr. Hmm. am na ñoo xam ne ñi ci liñ leen di déggee yéen def ngeen leen candidat. <laughs> ñoom ñooy waxal suñu ah, oh, mais mais ñun bu ñu bëggee xam ci xew ci réew mi yéen la ñuy déglu <laughs> moo tax seen responsabilité mooy boo leen di wax ngeen wax loo leen xam. léegi mais ñoom suñ taxawee neen ñoom candidat waaw d' accord nañu mais bañ ko wax ñun fekkewuñu ko il faut nga nangu am na yéen ñu ko wax parce que loolu mooy seen métier gisoo bi nga bëggee seen ay orientation mën nga woo ak keneen c' est ça la vérité aussi am il faut accepter votre c' est votre mission votre mission c' est mais d' informer vrai mais ngoonte moom dañuy jàpp ne tey ci biir foofu dina am ay cas am na ñaari kaa yoo xam ne moom la ñu gën a wax li ci gën a feeñ mooy Daouda Diallo ak ak ak ak ak Amadou Ba loolu la ñuy wax ne moo gën a feeñ ci li ñuy wax mais est-ce que amul ñeneen déjà ñun ñi amul coote am candidat ba pare yow yaa ngi naan am na ñoo xam ne xëy na bëgg nañ. ndax amul ñu bëgg oui. waaw mais amul ñu bëgg ndegam ñun ñu am ba pare <laughs> moo amal ñu bëgg ak ñoo xas maa ñi amul <laughs> c'est aussi simple que ça donc reconfiguration di daan foofu est-ce que dina jur ay ay problème ala kulli alin ala Euh, les ambitions sont là départ am sax day créer ay ambitions yu bees surtout que ambition yi léegi ci réew mi pour être président de la République les ambitions sont démesurées mmh. dans un pays de 17 millions d'habitants nga nar a retrouver ay 40 50 candidats à l'élection présidentielle se pour même d'ailleurs lan la ñuy def ci président de la République mënul yombe noonu nous ne sommes pas à la recherche d'un arrière central d'une équipe navétane <laughs> nañ nañu di dëgg donc par conséquent dina am ci parti am parti yi nga xam ne nag ñoom benn la ñu am kenn kandidaa la am moo tane parti bi am fukki candidat du dëgg parce que fukki candidat yoo xam ne ñett ñoo déclaré wala ñoo xam ne ñu aussi bu ñu nee bu ñu leen waxee du ñoom ñu ne dañuy bàyyi daal di indi ay éléments maa ko fi jiit maa fi nekkoon li ma daj fi fii la jógee nangam nangam mas na nekk li te nekkuma ko maa ko ëpp électeur nangam nangam kii ne séeréer la kii ne joolaa la c'est des questions donc ala kulli dina am ay problème dina am ay problème aussi ci seen li nga xam ne mooy ñeneen ñi nga xam ne aussi ay candidats yu à l'élection présidentielle mais bu tànk xamuñu exactement loi bi tëral ci problème parrainage yi ndëgam dina régler problème parrainage yi wala déet nuru na ne jur nañu yeneen jël nañu yeneen matuwaay mm-hmm. nombre de députés matuwaayu matuwaayu nombre de. conseillers départementaux waaw ma mais xam nga ne bu fekkee ne amuloo député. amuloo conseil municipal yu la yu la amoo conseil départementaux il faut nga wuti citoyen. waay xanaa waroon ñu boole ci chef de quartier. ah ba tey bokkul. <laughs> waaw moo lay wan ne. moo lay wan ne c'est un problème compliqué donc loolu aussi il faut ñu xaar ko. ba ñu xam ñaata candidat la ñu am. moom amoo leen problème boobu. Ah, ah. problème kay mooy actualité waaw actualité bi jëm ci Karim buggoon nañoo xam sànq aram laal laaj na la ko rek waa nga ni waaw euh, dana ñëw mais moom naka la dundee lii yëpp parce que jàpp nga sànq ni waaye dañ ko exilé. xëy na amuñu possibilité. xam gis ko en vidéo mu wax ak euh, sénégalais yi ñu gis ko lu mooy xëy na saa yu ne Karim dégg nañ ko rek mbind la lu ñuy jàng. xaw ma moom moo choisir format boobu wala boog ci ni ñu ko exilee loolu tamit da cee bokk mooy ni bu nu gis fenn fu muy def déclaration euh, visuelle euh, moom muy dundee lii yëpp. d'abord euh, balaa ma ci communication bi je pense que def na benn déclaration bi événement yi amee. Hmm. Hmm. avant mu koy def la veille laaj nañ ma naka la ko dundee. ma na la il a senti ces situation la dans la profondeur de son âme daf ko yëg ci xolam yëg ci deretam parce que parti bi mu nekk la ak ki jiite parti bi parce que nous sommes trop conscients de nos responsabilité la responsabilité du PDS n'est pas la responsabilité d'aucun partie à cause de son histoire du combat pour la démocratie, de ce qui a été fait dans ce pays et qui continue à être fait jusqu'à présent. ay la yéwén lu ñu fi def rek dañ ko yokk dañ ko yokk mais lu ñu ubbi la leneen li ci bees bariwul mais ay la yéwén Sénégal arrivé Ablaye Wade en 2012 dafa am benn ubbeeku bu ci nekk moo indi sax parti yu bari ak candidature yu bari yi ah donc bon prétention boobu sénégal yi am pour diriger ce pays c'est une excellente chose mais il ne faut pas ñu ko def ko anarchie. Hmm. maintenant Karim bind na. wax na ne suñu responsabilité ñun ñëpp mooy ba aller vers l'unité nationale ci textam la wax ne ñun dañu war a ku nekk ci ñun wax ak ay famille am famille wax ak say xarit pour ñu essayer de conserver au grand maximum notre unité nationale. maintenant communication bi. oui choix boobu choix boobu ci bind rek. Ah. waaw ci bind rek. waaw.